ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain kon ñi ngi war a jël suñu aaya yu mujj ci suratul mumtaxina ci aaya fukk bi ak ñaar ci suñu borom di waxee ni يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات نيجي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى ci lim ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam fas yéene jàng ab téeréem loole la ca nekk cay ngëneel bari na lool ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yal na yàlla jagleel ñu ko àdduna ak alaxira yal na ci boole it ñi nga xam ne ñoo koy nar a déglu donte ne seen tànk teewul te fayal ñun ñi dox suñu diggante ak ñoom bokkoon na ci li nga xam ne mooy Islam TV seen caméraman bi ja mu ne dafa feebar moo tax ñëwul yal na yàlla saafara ko ci jàmm te saafara bépp jullit tey jii mooy ñaareelu fan ci weeru mars ci 2022 di tombeeg ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci la nga xam ne mooy rajab suñu guddik tey gi kon mooy séntu bu njëkk ca la nga xam ne moom dañuy tuddee weeru shaaban mi ngi noonu suñ ko gisee alxames ji nekk benn pan suñ ko gisul ajjuma ja mooy nekk benn pan incha allah kon bu dee Cheikh Ousmane pare na moo jëlal ñu suñu bind bu njëkk
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني يا أيها النبي أي ينتبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك سديد لا ديكل جيجين نيغم ني جاينتيك ني جاينتيك يو تي ala allah yushrikna billahi shay'a ca mooy duñu bokkaaleeg yàlla ci dara wala yasriqna wala yaznin duñu sàcc ca duñu njaaloo wala yaqtulna awlaadahunna ca duñu rey seen doom yi wala ya'tiina bi buhtaanin yaftarina duñu indi it ci duural boo xam ne dañ ko ci loo xam ne nii aw duural la buhtaan mooy duural boo xam ne nii bu màgg la buy teg tuuma waaye boo xam it ñoom ñoo ko sos mi ngi noonu ñoo koy sos bayna aydihinna wa arjulihinna ca seen kanamu loxo yaag seen kanamu seen kanamu tànk ya wala yaasinaka fi maaruf ca it duñ la mooy ci benn njekk su boobaa day fa baayihunna wastaghfir lahunna allah jaayanteel ak ñoom ca jéggalul leen sa boroom inna allaha ghafurur rahim sa boroom yàlla aju koy jéggale la aju koy yërëmaate la yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tatawallaw qawman ghadiba allahu alayhim ay waay bu leen nekk di féetewoog nit ñoo xam ne yàlla daa mere ci ñoom qad ya'isu min al axira ñoo ñi nga xam ne dagg nañ seen yaakaar ca àllaaxira kama yaisa al kuffaaru min ashaabi al qubur comme ni nga xam ni noonu la dagge yaakaar yéefir ya ca ñu nekk ca bàmmeel ya ne duñu dajanteeg ñoom mukk mi ngi noonu ci kaw suuf donte na am ñu koy firi comme na nga xam ni yéefir ya nekk ci xabru ya dagg nañ seen yaakaar xam ne yërmande yàlla du loon dabantal mukk mi ngi noonu mbokk gis nañu ne saar bi biñ ciy mujj daje suñu boroom mi ngi ko tuddee woon saaru natt bi te tamit mbokk julit warul rek ku jóge fële na ko man julit la mu gëm la te fekk ne natt wuñu la suñ dar su passé waxoon nañ ci danger bi nekk lool ci wàllu sëy bañuñu ku may ku tuub soxna waaye li ñuy wax mooy ngalawaay buñ ko gaawee képp koo xam ne daa tuub bala ñoo jël doomi julit di ko ko jox dañu am lay yu leer preuve yu leer ci ne tuub gi mu tuub yàlla tax takk suñu doom taxut te it ngëm googu sax na ci moom avant ñu koy jox suñu doom tey nag am na ay jigéen yoo xam ne nii tuub si nañ dugg ci lislaam ñëw di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom jox ko charte yi mu war a jaayante ak ñoom bi ci jëkk mooy dañuy jaayanteeg yow ne duñu bokkaale ak yàlla dara te loolu mooy baasu diine ji baal baasu diine yépp ku ca échec daanaka échec nga ci li ci des lépp ku ko matal yi ci des yépp day yomb ci yow nit ki bu amee tawxid gëm ne yàlla rek la war a jaamu xam ku yàlla yi ci des yëpp day yomb ci moom ñaareel bi mooy bu ñu sàcc te it mbokk fu ñu tuddee sàcc rek xel yi ci góor lay dem waaye góor day sàcc jigéen day sàcc muy noonu góor day sàcc jigéen day sàcc mooy bu ñu sàcc moo tax suñu borom mu ne wa saariqu wa saariqa faqta'u aydiyahuma sàcc bu góor ak bu jigéen yëpp bu ñu ko jàppee dagg leen seeni loxo gis ngeen bu ñu sàcc sàcc googu yi tey mbokk am na ca gu bon ca mooy jigéen ñi sàcc seen alali jëkkër loolee mbokk baaxut ndax yaa war a sàmm sa alalu jëkkër lu dul la ca lislaam maye mooy ba jigéen ñi jaayante ki nga xam ne muy hind ah soxna abu sufyaan nga xam ne sonaloon lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yàlla ci sababam la Hamza faatoo ca Uhud bokkoon ci ñuy tuub mu ne yu mu yàlla yónni Abu Sufyaan dafa nay am na alal waaye daa nay du nangoo joxe dépense léegi xanaa lu dul lu ma jël ca yëgu ko yonent bi na ko booy jël bul paase la la doy yàgg sa njaboot ndax kooku moom daa dafa jël aqu jàmbur bu la yàlla mayee alal njaboot gi nga yor àq la ci yow nga dundal leen kon bu dee nanguwoo koo def soxna si mën naa jël ci àq ji loo xam ne àqam la waaye nag soxna ba koy def it da koy def ak intelligence ndax am na góori caamin yoo xam ne bu ñu yégee ne jël nga seen poos cent francs rek tey àdduna tukki waaye loolu moom mooy mbir bi ñetteelu bi mooy bu ñu njaaloo bu ñu dugg ci lislaam nañu xam ne du ñu njaaloo loole ñu ne hind daf ne yonent bi alayhi salaam ndax jigéenu góor dana njaaloo mais ndax jigéenu góor dana njaaloo te it nañu xam ne mbokk suñu borom yàlla amul lum ñu tere lu dul avant mu koy tere borom xel yu rafet yi daw ñu ko def am na ñoo xam ne ni duñu julit duñu chrétien waaye dara jarulu leen sàcc am déet am ñoo xam ne ni duñu julit duñu chrétien waaye dara jarulu leen jaalo am na ñoo xam ne ni duñu julit duñu chrétien ca duñu naan sàngara lu waral loolu mooy xam nañu lii du jukko bu baax moo de hindi na ko ah ndax jigéenu góor dana njaalo mi ngi noonu yonent ci bari sam na la ala kulli xaal du ngeen njaalo ñeenteel bi mooy du ngeen rey seen bak seen doom yi ca mbokk julit njaaloo ak rey doom ak a jege yoo buñ la waxee li ñuy tudde infanticide te mooy xale yi ñuy rey di sànni ci poubelle yi 99 virgule nanga yëpp ay doomi njaalo lañu am déet sa jëkkër di dem bàyyi la nga ëmb gannaaw ba wala ëmb bañ ko feeñal nëbb ko ba ci nga daal di koy rey reyin bi gën a ñaaw gis ngeen duñu rey seen doom yi donte ne bokk na rey ay doom mooy avortement yi nga xam ne dañ koy def bokk julit mboolemi borom xam-xam dëppoo nañ ci ne bépp ëmb boo xam ne passé na 4 mois képp ku ko avorté rey nga nit rey nga nit loolee ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina rek la nga dem ñu naan la waaw kii day ëmb bi dafay bu juddoo day am malformation day nekk mongol day nekk kaza ixtilaaf ba day fam nekk mooy avant mu am 4 mois waaye su passé 4 mois bañ def ci ruux quel que soit lu mën a doon dañ ko war a bàyyi mu judd loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kenn amul droit di ko rey gannaaw ba du ñuy indi aw duural duural boobu day nekk ñaari mbir benn ci jëf te bokk na ci jëf mooy nekk ci sëy dem njaaloo ji jël doomi keneen askene ko sa jëkkër bokk na ci buxtaan mooy duural nit ki ak njaaloo ci defu ko te loolu lu yomb la loolu jigéen mi ngi noonu mooy ña nga xam ne dañuy dóoral ca naka yonente bi alei wasalaam ci sab'il mubuqat ña nga xam ne dañuy dóoral ña nga xam ne jigéen ñu sell lañu wala góor ñu sellal gannaaw ba it suñu borom mu ne ko duñ la moy ci njëkk njëkk boobu ko min muatiya lan la ko doon firee mooy li ñu tudde niyaaxa dafa nekkoon ci aaday arab kilifa bu dee jooy yi dañ ko war a jooy jooyi kilifa ku ñëw day jooy jooy yooyu dañ ko doon leblente di ko fayante islam nag ñëw aaraamal yooyu te mooy jooy yi ànd ak yuuxu ak jàmbat ay waay ñi ñàkk kay baadoole yi ñàkk nañu ay waay fu ñu jëm ay nangam loolu mbokk may ni yaaxa islam da ko aaraamal maati yeneen lii la yonente bi alayhi salaam wax donte ne nettali na ci lu xaw a doy waar nee na yonente bi alayhi salaam bi muy wax ba yegg si foofu jigéen ñi di jaayante am benn soxna su caamen rocceeku dem ba mu yàgg mu ñëwaat mu ne ko waay yow yow foo demoon mu ne ko man day diw fat jaay bi bàyyam dee ah bis ma bàyyi dee man daal ñëwoon jooyal ma jàmbatal ma léegi nag damaa dégg bàyyam dee na avant muy ñëw ma ne nag naa dem fay ko bor bala maa jaayanteeg yow yaa ngi dégg waaye fay naa ko léegi nag ba ba baa may dégg sama borom dootuma jooyal kenn yaa ngi dégg ala kulli xaal mu ne ko duñ yaasi naka fi maaruf duñ la may ci njëkk mu ne su boobaa jaayantelal ak ñoom jigéen ñi nangoo saxal li jaayantelal ak ñoom ci lii war nañ koo jàngal bépp jigéeni julit mu xam loolu mbokk yonent bi alayhi salaam bi mu ne soxna yi dégg ngeen loolu ñu ne waaw mu ne jaayante na ak yéen ci loolu soxna yi ne ko ah lu ñu jël sa loxo teg ko sa loxo comme ni ko góor ñi defee mu ne leen déedéet inni la usafihu nisa man duma laal jigéen mi ngi noonu loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax nañu xam ne mbokk nuyoo góor ak jigéen ci duñu mahram dafa aram ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu jamono la pont sa bopp moo gën ci yow moytu leen loolu du suñu diine du suñu aada yéefiri tubaab yi ñoo ko fi indi indil ñu lu gën a garaaw loolu muy akolaat jël jabari jaambur taf fóon lex bi fóon lex bi bu ko defoon suñ cam ca kaw ga day jaasi mu leen di teqali am déet gis ngeen loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax danaa ci fàttali kenn ci suñu magi réew yi fi jaaroon muy suñu abdul aziz si doon na wax gis naa mol wu fi raam buñ ko fi yar yéen xale yi mol muy fas bu ndaw gis naa mol bu fi raam buñ ko fi yar ca mooy nuyoo góor ak jigéen ci penc mi gis ngeen ngeen bàyyi ci xel bu baax loolee mbokk du suñu aada du suñu diine man duma nuyu jigéen laa usaafihu nisa yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom na ko bu dee nangu nañ lii mun a jéggalul leen li passé te mbokk képp ko tuub dugg ci lislaam mboolem la nga mas a def yépp yàlla baal na la ko benn góor ak caymen jóge fële ak yatam sukkootu ñëw ah jënd yonent bi alayhi salaam man day nangu naa charte d'islam dugg naa ci diina ji seede baatu seede yi bi mu pare mu ne ko ndax yàlla baal na ma mu ne ko yàlla baal na la kay mu ne ko lépp mu ne waaw mu ne ko war yow loolu war gaa yàgg tooñ ñëma doon tooñ yëpp yàlla baal na ko mu ne waaw mu ne est-ce que day su ko tooyoo tam daa est-ce que mais baxin baxin di dem di dem gis ngeen al islam dafay màbb lépp lu ko jiitu gis ngeen suñu borom mooy al ghafur rahim mooy kiy jéggale di yërëmaati gannaaw ba nag mu dellusiwaat ci julit ñi ay yéen julit ñi bu leen dem mukk di féetewoo ak nit ñoo xam ne xam ngeen yàlla da leen a mere te loolu mbokk cosaani mooy yahud yahud yi la yàlla mere kan mooy ku mel na ñoom képp ko xam yoonu dëgg ba pare bokk fa topp ay bànnee xam kooku al maghdub alayhim ci la bokk kenn warul féetewoo ak moom suñu borom nee na ñooñu day nga xam ne dañoo gis dëggug yàlla gi bokk fa topp seen bànneex xam nañ ne àllaaxira duñ fa am dara comme yéefir yi ni ñu jàpp ne dootuñu dajeeg seeni mbokk ci kaw suuf te it nga la waay julit bul mel noonu sa soxna si nga bëggoon lool mi si wéttal gu dégg ba cëg mu xëy xëy dee nga la waay jaamul yàlla gannaaw ba ñaanal ko yàlla yàlla mën na leen dajalewaat ci àjjana ya sa baay bi sa xarit bi sa doom ji nga xam ne dañ laa jiitu su dee ne da ngeen dee ci ngëm yàlla mën na leen dajalewaat ci àjjana ya amma yéefir nag moom ko ngumul àllaaxira jàpp ne ku mu xis ba suul jeex na mi ngi noonu yal na yàlla dajala ñoo mboole mi suñu mbokk julit ci àjjana yu kawe ya mi ngi noonu Cheikh Ousmane